soo amoon kàddu yu mujj lan nga ñuy wax ñu tëj. waaw kàddu yu mujj salam siyaar bëggee bëre rap reggae fi ñu jógee dafa sore xeres yi ñoom mënuñu ñu téye ndax dañu mën a bëre teg si soxor kale attaqué ko ñu gagné muytuma damay reye waxatuma waxu gagné maa mën dafa leer ni ndellu abba dama xaw a dóor leer bu dul jaag di ndaama dina tar ba nga fàttaliku njulli ndiga foog ne dañ koy daggaat ndiga yow mi doo gaat doo dem kon toogal bu sa biir dafay daw si min sa tubay dogal is your boy Bang la niggas